sunugal24.net l'information à sa juste valeur si si même sunugal24.net def nii rek dëgg ñëwaat. waaw jëlee suñu chance. pour bañ ñu jël si la carrière la. non non xam nañu ñoom ñoom suñu voyage bi. wala ku ne lañ taxaw ku ne lañ. waaw. sunugal24 point net